Euh, sant yàlla sant président de la république nga xam ni mu ñu dénk man ak euh, suma naataangoo Victorine Ndeye lépp lu jëm ci dëkkuwaay lépp lu jëm ci aussi ci li nga xam ni sénégalais mën a am fu mu dëkk loolu tamit ñu daje tey ma félicité ñi nga xam ne ñoo ko organiser muy fonds pour l'habitat sociale muy FONGIP muy euh, muy banque yi nga xam ni Bokar Sy moo leen fi teewal ñu xalaat ni tey war nañ signé benn accord cadre ba nga xam ne ci projet 100 000 bi day gën a dimbali sénégalais ñu mën accéder au crédit mais ñu ci garantie ñu mën leen ko yombal ba nga xam ne sa doole ak mu mënta toll nguur gi jàppale la ba nga mën ci am loolu mooy ndigalu loolu mooy instruction président de la ñu ñu ñu profité ci itam ba nga xam ni euh, tey mooy journée mondiale boo xam ne loolu su ma koy traduire mooy bés bu nga xam ne àddina bi daf koy fàttaliku. naka la ñuy doxalee dëkkuwaay yi dëkkuwaay si Sénégal tey am nañ occasion bu nga xam ne war nañ ci mën a wax parce que président def na projet bu mag bu ñu ooyee projet des cent mille mais projet cent mille du wax kese du du du du du ay ay mirage kese non non li jàpp ci projet cent mooy ñi nga xam ni amuñu doole mu ay néew ji doole amuñu amuñ lu nga xam ne mën na leen garantir état bi ne. président mu ne nañu ay jël ay pexe ba ñooñu ñu mën leen garantir ba ñooñu nga xam ni amuñu revenu quatre cent cinquante mille francs te mosuñu am kër ñu mën a am occasion bu ñu amee kër mu jël mu defar mu def SAFRU mu def fonds pour l'habitat social mu jël sax ci ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène mu taftal ko benn secrétaire d'État mooy mu muy muy xool mbir moomu naka lañ koy saytoo mu oo secteur yëpp muy banque yëpp ak partenaires financiers yëpp ci nekk na ci dugal loxoom. léegi léegi maa ngi fàtte léegi di di di saluer banque bu nga xam ne moo ci njëkk a dugal loxoom mooy banque islamique du Sénégal di lu toll 50 milliards ne ci financement wu 100 000 yi dina ci dugg ba loolu moo tax tey fonds bi mën a commencé di dox Safri mën a commencé di dox. te banque mondiale itam nekk ci yoon ba nga xam ne ñu ngi discuter ñoom ba nga xam ne ñoom itam dinañ ci dugal seen loxo bu baax a baax mais loolu yëpp il faut que ñu organiser ko moo tax fonds pour l'habitat social ak banque yi ak. FONGIP tey ñu waxtaan ba signé accord cadre ba nga xam ne du ci kayit kese ñuy ñaan rek accord yi ñu fi signé rek tamit ñu ne mën cee veillé ñu mën cee veillé ba ñi nga xam ne du ñu wax rek sénégalais dañuy signé rek te du jëm fenn ñu rafetlu itam mais li ñu gën a mën a mën a waxaat mooy mbir mi am na sénégalais yu commencé ñëw ñu leen di enquête mais loolu yëpp bu ñu paree loolu yëpp dana am aussi commission bu nga xam ne day sélectionné ak ñi nga xam ne ñoo ci ñoo ko ñoo ko yelloo parce que duñu bàyyi rek ay ñaari ñett nit di ko def. dafay président ñu laaj lépp mu leer nañ ba nga xam ne benn contestation du ci am ak sénégalais fu mu mënta nekk lu mu ci mën a xalaat ñu wax ko ñooñu bu ñu defee ba pare commission boobu bu ñu ko mettre en place ñooñu ñooy tànn ñi nga xam ne ñoo yelloo ñoo yelloo kër yooyu. mais ji bu ñu profité tamit gis ni ci fan yi ci weer yi ci bi sax bâtiment yu bëri ñu ngi daanu muy rey sax ay nit ñuy massaw famille yi ñu nga xam ni loolu ñoom ñoom ñoom la dal mais bu ñu massawoo ba pare ñu war a xoolaat suñu bopp. war a xool li tax loolu am bu loolu amee du nguur gi du nguur gi peut-être nguur gi dana ci am responsabilité à travers le ministère que nous incarnons mais responsabilité bi dañ ko war a xool ci si gën a sori ñiy tabax ñi ñuy tabaxal yoon lu ñu war a jaar ñiy vérifier parce que boo amee chantier war na am ñu koy contrôler ñu koy contrôler mais war nañu xool est-ce que xayma nañ lépp lu ñu ci war a def loolu yëpp mooy tax liggéey fu mu amee benn faay rek fukki at ñaar fukki après day am daf ñuy rattraper. tey li ñu la attrapé nii bâtiment yi di daanu mooy c'est l'insouciance et l'inconscience collective bi dal ci comportement yi moo ñu jural li ñu mel mais du ñu yem rek ci xool ko dañu war a jël ay jumtukaay yu nga xam daf koy faj ni mu koy fajee mooy président daf ñu joxoon ndigal ci conseil des ministres ne inspection générale du bâtiment nañ ko gën a jëmmal nañ ko gën a jëmmal mais li ñu leen mënta jëmmal jox leen ay texte jox leen koppar il faut aussi ñoom def seen bopp liggéey dañ koy jox ak xam bu ñu ko joxee suñu àq te ñeme bañ a ragal ñu ne baa waaye su ma laalee ñii ñii yuuxu réew mi il faut que am ñu yuuxu mais boo la nga am courage def li nga xam ne mooy yoon na am courage def lu nga xam ne loolu le président digal ak coow bu mu tëjur nga def ko dëgg ci yoon lu yàgg-yàgg la vérité finira par triompher ma gërëm aussi acteurs yi fi ñëw yëpp déglu naa leen ñun ñëpp déglu nañ leen muy man muy madame le secrétaire d'État déglu nañ leen ci seen ñu rafetlu ci seen volonté de collaboration loolu rafetlu naa ko lool kontaan ci aussi mais bëgg naa rek ñu ci ñuy gisee lu bari ñuy critiquer wante parce que baax na lool ngeen ne ñu ñoo ànd mais wax leen ñu fu doxul parce que maa ngi déglu benn jour euh, ci télé euh, patron urbanisme maa ngi toog 3 heures du matin ci 2STV bi di ko déglu mu critique critique yu bari critique yooyu nag dama bëgg ñu koy wax fii ñu ci waxtaan directement ñu xool naka lañ koy fajee parce que ku nekk bu toogee ci ruqam rek di wax adduna bi mu kenn mënu koo defar moom rek kenn Sénégal ñun ñoo koy boolee defarandoo ko ou bien ñu boole di xool muy yàqu xool mu yàqu nag du loolu lañ fi loolu lañ fi tegee dañu ko fi teg pour ñu xool naka lay defaroo loolu nag ma gërëm leen ci sant leen félicité véritablement ñi nga xam ne ñoo jiiti mbir mi yëpp xam nga ministre ak secrétaire dafa yomb dafa yomb lool que yi ñu ngi ñuy ci suuf ñoom ñooy def lépp bu dégg bëccëg ñuy lu nelaw duñ nelaw mais ministre ak secrétaire dañuy xaar ba mbir mi sotti rek ñu jox ñu ko ñu xool ñu naa ah fii baax na fii baaxul loolu yomb na lool moo tax liggéey bi ngeen ñu leen ci gërëm di leen sant wane ñun mënuñ def dara te yéen taxaw leen ci su ngeen taxawul mbir dara du sotti mais su ngeen taxawee nu ñu war a taxawee ñun ay entraîneur rek la ñuy nekk te entraîneur nag boo amee équipe bu baax amay joueurs yu baax war nga mën a yaakaar war victoire maa ngi leen di gërëm leen sant wasalaam